askanam ngir jàngoro coronavirus takk der yi yu Sénégal daan ci jàppale kër docteur ba askan wi ñàkku ci anam ya mu gënee loolee bokk na ci diglay njiitu réew mi président leneen lu fa jibee ne dogal di ak yeesal ñel contrat ASP yi ak yeneeni dogal Salif Sow takk der yi dinañ dugal seen loxo ci wàllum ñàkk wu ñu war a ñàkk askan wi président de la république di Macky Sall moom moo ko xamle teg ci xamal joriñ bi ñu dénk wàllum wér gi yaram ne lépp lu jëm ci wàllum ñaax askan wi ak it waajal ñàkk yi lee na ci taxaw ci nu mu gënee gaaw askan wi nga xamante ni ñoo gën a magal ñoom la ñuy euh, jiital ca yëf yooyu le président de la république tamit laaj na waa gouvernement bi ne digal yi nga xamante ni amal nañ ko mu jëm ci wàllum catastrophe sanitaire nañ ko taxawal ci nu mu gënee gaaw li nga xamante ni mooy couvre-feu nekkee Ndakaaroog Cees it nañ ko wéyelee ba euh, APR ci jamono jooju tamit le président de la république di sàkkoo ci askan wi ne nekku ne dugal loxoom ci xeex bi ngir ñu mën fi jëree mbas muy àggali waxtaanam ci conseil des ministres bi ba léegi président de la république jaajëfal na réewum Japon jox nañ ko waa Sénégal ñeent fukki milliards ci sunu xaalis jëmale ko ci wàllum couverture maladie universelle atum 2021 ko war a dooree ci jamono jooju ba tey ASP di ñu yore wàllum sécurité de proximité président njàngale mi nga defaraat école yi nga xamante ni dañoo màggat rawatina école yi nga xamante ni jamono l'indépendance lañ fi nekk ba léegi table banc yi liggéey ba nañ ko jox menuisier yi nekkee Sénégal di artisan yi li président de la république ci wàllu woowu ba tey mu ngi xamal jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng meek njàngale mi ak bépp ministère ni diggée yu ñu defoon ci waa syndicat d'enseignants yi nañu fexe rëkkiwaay ba matal ko